ñoo xam ni cër bi mu am ci lislaam am ko ci diine am ko ci réew mi di réewum Sénégal ñun xam nañ ko miraaral gis ko gis ay taxawaayam gis ab liggéeyam ci doomu aadama yi ak jullit ñi ak li nga xam ne mi ngi koy doxale ci diggante Muhammad alayhi salaam yi nga xamante ni mooy soppeem nga xam ne moom la jiital ci lépp ñu xam ko bu baax a baax yàgg koo fréquenté yàgg gis ay jotaayam ak taxawaayam tey moo ñëw fii ci Masaalikul Jinaan du ma ne guléet waaye fii day néegub yàlla waaye nal masaajida billaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadaa mu ñëw julli si àjjuma waaye def lu am solo ñëw fekk jumaa ji xaw a fees mu ànd ak mbooloo mi mu àndal ñu ko ñëwal dugg ci biir mu ni fii baax na naa jullee fii ndax fu ma jullee am yoon ca tëj loolu nit ku oyof moo ko man ndax Sëriñ Tuubaa dañu woon koo xam ne diis bu tee ñu yenu boo woyofee noppal ñu la yenu loolu moom la doxale tey moom lañ bëgg rek euh, di ñu dend ak Sëriñ Sylla Baye Fall ak ku mel ni Baye Modou Mbaye Samb gis ak mag ñi nga xam ne ñoo nekk fii Cheikh Malick nga xam ne ku gis day jub jox la xam ne yàlla euh, ñëpp ñu leen ñëw fii seen euh, julli si siyaare ci biir weeru koor yi nga xamante ne day weer wi nga xam ni lu baax du ci doy tiyaaba di ju yàlla def ko muy ngëneel nga gis nii jullit ñi di ñëwee di jumaa ji di julli euh, lan nga mën a baaxee mbokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog yow ci weer wi ñu nekk waaye fii ñu nekk nga xam ne mooy Masaalikul Jinaan alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si yonente bu tedd bi moom aba zahra sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay nuyu Seydi di nuyu Serigne Sylla mii ma dendal am mbégte mu rëy dellu siwaat fii tey jii ci bërëb bu rëy bi Massalikul Jinaan mu nekk fierté pour bépp doomu aadama ci biir Afrique ma fekk fi nag sama waajur Alaaji Mbàkke yu Fay waxtaan ak moom léegi nuyoonte ak imam saafonte ak moom mu def ñaan ñaan ji yëpp nag cëslaay ga mooy yàlla wàccee jàmm ci suñu réew weer wi nga wax nag weer wu tedd la suñu weer muy weeru yërmande ak li yàlla wax ci fukki fan yu njëkk yi yonent bi indi ko ci ay hadis yan yërmande boobu wesaare wu ci réew mi yëpp ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga Seydi Kane bëgg yonent bi rek moo wér sallallahu alayhi wa sallam Cheikhul Khadim mm-hmm. wane na ko ci ci njàmbaaram mm-hmm. ci taxawaayam ci ci pas-pasam mm-hmm. ak ci cofeel gu rëy goo xam ne jàngal nañu ko naka la doomu aadama war a taxawee ci kaw société mooy mooy mooy mooy dëkkmal yonent bi sallallahu alayhi wa bañ ko bàyyi benn yoon loolu moo wane tey jii maa ngi koy waxoon keroog wax naa ko benn nit ma ne ki nga xamante ne moo ñu yëgal ne yonent bi mi ngi ñëw ci kaw suuf yatimin bahdi ismu ahmad la wax muy Isa ibnu Mariam moom amul bàmmeel ki nga xamante ne moo feeñal cheikhul Khadim dëgg-dëgg ci biir zahir ak ci baatin mu cheikh Umar Foutiyu moom itamit amul bàmmeel moom ak bi sallallahu alayhi wa sallam léppam léppam daan niru lépp cheikhul Khadim waaw lu rëy loolu nag tax na tey ji mbégte ñun bi ñu métier di ñëw bërëb boo xamante ne moom moo ko sanc ci baatin nit ñu yeggale ko wax naa ko benn nit aussi yàggul ma ne xoolal fa ñu bëggoon def mosquée bi ak coow la fa am fekk at ya ca ginnaaw tudde woon nañu benn avenue Cheikh Ahmad Bamba ci baatin mu xëccaat mosquée ba teg ko ci avenue moom loolu kéemaanu suñu borom la moo tax sant nañu bu baax di nuyu aussi suñu waajur di leen nuyu yàlla yàlla waa def jàmm ci suñu réew ndax jamono ji kuy ñaan na na ñaan jàmm ci réew mi kuy ñaan rek na ñaan jàmm ndax jàmm su amul lii am tey jii fii du fi am kenn ku ne sa kër ngay dog donc nañu ñaan jàmm nañu dox ci jàmm teg suñu ay intérêt yëpp ci suuf te ànd ci jàmm jooju te di xencu li ñu fi Cheikhul Khadim bàyyil muy cofeel gi mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu lool ci ñëw bi